السلام عليكم ورحمة الله مكين يلين نيد الانزيار لان الحق ان برمي سبحانه وتعالى مبولي نجاق ان يوتي المسألة رقم الثالث من السنة المؤكدة وتسمى سنة الهدى وهي الأفعال المكملة للواجبات الدينية والتي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين مع التنبيه على عدم وجوبها وذلك كالوتر على سائر السنن المؤكدة وحكمها أن فعلها مطلوب على جهة التأكيد بحيث يثاب فاعلها ولا ولا يعاقب تاركها وإنما يستحق للوم شرعا والله أعلى وأعلم مسألة نمرة 3 ne dafa am lu ñuy wax sunna bu dëgër mooy li nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko taqoo woon te mosu koo bàyyi du dul benn yoon wala ñaari yoon ba noppi di ko bàyyiloo xel nit ñi ak di leen moytuloo bañ koo def comme lu mel ni witir moo tax mu doon loo xam ni boo ko defee am ca tiyaaba waaye boo ko deful doo ca am bàkkaar waaye ding ca jële yeddeel yàlla mooy ki xam lépp bu ko defee li nga xam ni mooy masala tey bi li jàngale rek mooy li ñuy wax sunna mu akkad ci sharia xam dafa am farata am sunna mu akkad sunna mu akkad na mooy sunna boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko woon bu ko bàyyee mën nañu benn yoon la wala ñaar yoon ba noppi doon ko bàyyiloo xel nit ñi di ko def maanaam ñu taqoo ko comme ni ko taqoon mu mel ni witr mooy shafa ak witr witr mooy benn rakk bi ji ci shafa ci la bokk ak yeneen sunna yi rek yu bari ki nga xam ne daf koy def nag moom dañ koo digal pour mu def ko léegi def ki bu ko defee dana ci am tuyaaba waaye bu ko deful du ci am bàkkaar waaye mën na caa jëlee ak yeddeel loolu lañuy wax sunna muakkad bokku na ci julli korité ak julli tabaski loolu moy suñu dar si tay yàlla defal deg ak top khul khawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh